réew mi sax du def loolu ndax bu koy joxee da koy jox ñi xam liggéey bi tey bu ñu toogee ba jur gi tegu ci suñu loxo ndax yàlla moo ko dogal ñun ñoo mën a xam ci yan réew nañu mën a dem pour indi njur gi ñun ñoo mën a xam tamit lan nañu mën a def suñu réew pour nga xam ne suñu njur dinañ ci mën a euh, dund ngir askan bi man cee jot ndax ku ne xam ne ni yàpp toll na foo xam ne actuellement Euh, euh, tamit wax dëggante yàlla état bu ñu épaulé rek ñun dinañ mën a xam nan nañu mën a def bu dugg ci àll bi mën a génn njur gi pour Sénégal gépp mën ci am te euh, li ci ëpp solo mooy état dafa fonk njur ndax njur dafa doon loo xam ni dafa tas ci àddina bi ndax yàpp kenn mënta xëy ci àddina te utiliser woo ko muy dëj di ngénte di événement bu mënti am il faut que nga utiliser yàpp moo tax ñu boole ñoog ay vétérinaire état yi nga xam ne dañoo ñëw di di saytu yàpp wi mi nga xam ne war nañ ko jël jox ko population bi pour ñu pour ñu lekk ko ndax wér gi bëreetul kon nag lépp lu ñu jox doomu aadama yi dafa war a sell dañ ko war a xool seetaat ko bu baax soog ko génne ci suñu askan wi jox leen ko yaakaar naa ni nag euh, euh, suñu président devoir am moo koy def ndax tey jii ñoo ngi ñuy organiser ñu ñëpp pour ñu organiser wu waxtaan doon benn bloc comme ça ñu mën ñoo jàppale nag parce que tey jii euh, suñu liggéey suñu buggee mu dox bu tabaski jotee ay xar am bu korite jotee nit ñi am ndawal il faut état teg ci loxoom ndax sénégalais yi ñoo yor seen propre moyen di góor góorgóorlu kon kiy góorlu yaakaar na ni bëgg na ku ko jàppale. kon bu état jàppee ci suñu euh, suñu association bi nga xam ne moom mooy en preuve yàlla mën naa def jàmm bu tabaski jotee tey ñëpp dinañ am xar. bu xew jotatee ñëpp dinañ am ndawal tey ndawal dootul ñàkk te Sénégal te dina wàcc nag ba néew gu doole yeeg ñi ñëwul doole yëpp mën cee am. waaw loolu foog mu jeex parce que réewum Sénégal dara manqué wu fii. Sénégal dara manqué wu fii ndax ñi baax ñëpp fi nañ dëkk kon yaakaar naa ne suñu réew moo gën a war a naat ci àddina mais élément yi nga xam ne ñoom ñooy tax loolu am mooy ñun acteurs yi taxaw nii tey dañoo fas yéene lënkaloo ak état bi. fexe ba Sénégal ñàkkum yàpp dootu fi amati ndax yàpp bu demee ba jar ay trois mille huit cent ay quatre mille ay trois mille sept am na ñu ci mën a jot am na ñu ci mënta jot. tey jii ñun ñooy jël suñu propre moyen di ñafe état bi dañu jàppale kon nag bu fekkee dañu bëgg yàpp bi wàcc dañuy def que suñu président taxawuñu bu baax jàpp ci suñu association bi nga xam ni moom mooy en preuve yaa ngi may dégg. dooleel ñu kàttanlu ñu ñu mën a dem fu ne ci àddina bi fexe ba suñu réew dootuñu ñàkkati xarum tabaski dootu ñàkkati yàpp euh, euh, dara dara ci jafe-jafe dootu fi amati incha allah.